mbokk ki jër ngeen jëf ba léegi ñu ngi àndandoo ak yenn en direct ci télévision Futur Média quartier général euh, ñu ngi leen di ñaanal guddi gu neex ci euh, télé bi les minuit 47 mooy doog a jot kon heure bi demagul fenn euh, Adja Binta ah, heure bi demagul fenn mën nañoo dem ba 4 heures du matin ndekete non mën mun na ñu jullee fii fajar bu ko defee oustaz def ñaani rek ñu doog a àggali li nga xamul mooy <laughs> moom la ñu naan ginaar <laughs> Thérèse ñu ngi lay gërëm merci euh, ci sa teewaay tey ci euh, quartier euh, général defe naa xale yi ñoom xam nañ sa njëriñ ci réew mi ndax yaa ngi ciy jàpp boobu ba tey mais damay bàyyi rek Adja Binta tàmbali et puis ñu doog ko jàll ci Dieynaba Seydou Ba ak question yi nga xamante ni mm-hmm. internautes yi ñu ngi la koy laaj depuis que ñu annoncé ni yow yaay nekk ganuk quartier général tey. COJER COJER bi nga xam ne moo ëmb ndaw parti APR ci mhm. parti bi nga xam ne moo nekk ci nguur gi mhm. yaay directrice aussi case des tout petits Pape Cheikh Diallo wax na ko mhm. case des tout petits nag bu ñu koy wax mun nañu wax ne président Abdoulaye Wade moo ko fi njëkk indi ngeen ñëw yeggaliko ngay aussi maire de Diarère mu nekk Diarère la mu nekk ci commune bu département bu Fatick xanaa ñu laaj la rek laataa ñuy xuus ci wàllu politique bi bu mhm. baax ci wàllu investiture yi mhm. ci wàllu euh, seen parti jafe-jafe yi ya fa nekk mhm. ah ak investiture yi aussi problème yi mu indi case des tout petits comme da ngeen ñëw dañ ne euh, nguur yeggali la rek nga ñëw nekk directrice de la case des tout petits ñu bëgg a xam lan nga fa fekkoon ak lan nga fa indi euh, merci beaucoup Adja Euh, may nuyu d'abord euh, sénégalais yu ñuy seetaan yëpp. Mhm. ci Sénégal ak ci jaspora bi. Mhm. mais aussi remercier leen nuyu équipe bi ma fi fekk yëpp. Mhm. di leen di baalu àq ci koor gi. di ñaan yàlla nangu suñu koor. te nangu aussi suñu ñaan. Euh, di wax ne que très rapidement rek ma nuyu aussi ndaw Alliance pour la République ak ñi ma xàmmee ci télé bi yëpp maa ngi nuyu ñëpp. di wax ne très rapidement quasi tout petit comme ni nga ko waxee. agence la ba nga xamante ne moom mooy gérer la mise en œuvre de la politique nationale de développement intégré de la petite enfance mooy lépp loo xam ne dafa dem ci wàllu tout tànk mhm. muy éducation muy nutrition muy li nga xam ne mooy protection sociale muy li nga xam ne njàng ba ci njàng diineem loolu dañ ko tënk ci benn document créer agence bi dénk ko ko agence bi di doxal boobu politique. Euh, loolu nag euh, comme ni nga ko waxee léegi président Ablaye wadd moo ko fi indi mu nekk loo xamante ne tamit mën naa ne presque la communauté internationale dañ ko saluer. dañ ci taxaw gis ne que en Afrique pour une première fois mu gis état boo xamante ne dafa consacrer une agence à la petite enfance. donc loolu nekk lu rëy ñu fekk ko nag ci situation ba nga xamante ne fekk nañ ay structures yu commencé démarrer. mais ñun bu ñu ñëwee li ma mën a wax ne que gouvernement président Macky Sall yokk na ko ci mooy bu ñu ñëwee gis nañ ne que ci modèle case tout petit bi ngeen gis léegi ngeen xam ne mooy case bouron bi euh, côté pédagogique ça posait problème te képp kuy jàngale di ma seetaan dina xam li may wax parce que boo bëggee jël benn salle nga jël euh, ñetti section nga dugal leen ci benn salle bi groupe bii na nekk fii groupe bale nekk fële groupe bale nekk ñi nga xamante ne ñoom ñooy jàngalekat yi soo bëggee téye ay xale petite section fii kii téye ay xale grande section kii téye ay xale moyenne section ak coowu xale bruit beeg yooyu loolu moom moo taxoon ñu gis ne que dañu war a changer modèle bi. changer modèle bi euh, séparer section yi c'est-à-dire section bu nekk am classe boppam. donc ci biir nouveau modèle bi ñu am trois sections mais aussi intégré ci une cuisine ndax li ñi ñu xamul mooy nekk ci biir case tout petit xale yi balaa 13 heures lekk balaa ñoo dem. Mm-hmm. loolu am ay partenaires yu bëri yu ñu ciy jàppale. donc ñu def ci cuisine bi def li nga xam ne aussi moom la ñuy wax la salle polyvalente mm-hmm. ki nga xam ne mooy maître coranique bi bu ñëwee ci biir case bi ci salle boobu lay accueillir xale yi di leen di jàngal alxuraan. Mm-hmm. mais aussi ñi nga xam ne moom la ñuy wax euh, les mères assistantes wala couple mère enfant yi parce que des fois jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci gox. gox bi dañuy soxla day am ay séances de sensibilisation yi nga xam ne partenaire wala ministère de la santé dañuy am ay waxtaan wi ñuy def ak ñoom ak relais communautaire yi ñoom saal boobu la ñuy utiliser. mais aussi programme informatique bi aussi foofu lañ koy développé ak bureau directeur bi etu tout donc li ma mën a wax mooy ne que modèle boobu ñu ngi ci fanweeru ak ak ak ak juróom-ñaar structure yoo xam ne quasi tout yoo xam ne tabax nañ ko ci modèle bu bees boobu. li nga xam ne moo mujj mooy programme bi ñu am ak la bi ñu demee benn mission bi ñu àndoon ak président de la république Corée ñu gis la président waxtaan ak moom mooy ndeysaan ki ñu destitué yàggul dara koy a décidé jël presque deux milliards et quelques teg ko ci ñooñu aussi ñu ngi tabax presque lu mot ci euh, ñeent fukk 40 cases yi donc mën naa ne tey ñun approche bu ñu def mooy comme ni nga ko waxee léegi rek état continuité la donc ñu ñëw euh, non seulement rafetal li nga xam ne moom lañ fi fekk mais aussi améliorer li nga xam ne moom mooy nekkinu jàngalekat yi ndax mhm. ñoom tamit dañ ci am solo te ñoom bu ñu ci gisee seen bopp rek dinañ ci mën a mën a Binta di xuus euh, mhm. Thérèse Faye mhm. nee nga da ngeen ñëw changer modèle bi donc ça veut dire que yéen li ngeen utiliser ci wàllum koppar euh, pour euh, tabax case yooyu moo gën a cher kon ci li li li kon régime bi fi jóge di di utiliser parce que ñoom bu nekkee ñoom dañ ko def benn batiment yéen ngeen bëgg ko ñëw def ay bâtiment ci biir donc ça veut dire que coût bi a moo gën a bëri. Mm, mm, mm, foofu laa bëggoon euh, insister. Ah, parce que euh, li tax ñu gën ko def. Euh, logique la ba nga xamante ne moom la président Macky Sall prôné c'est-à-dire rationaliser les ressources de l'État mm-hmm. ba tax na. Euh, xam nga aw ma sax droit joxe prix casier tout petit bi ñuy tabax nii parce que procédure appel d'offre yi xam naa ne am na entrepreneur yoo xam ne ñu ngi seetaan bu ñu xamee ne que casier tout petit temps lay jar amatul sens. Mhm. Euh, bu ñuy nekkee di naan dañuy dañuy def euh, dañuy def appel d'offre yi. parce que mhm. loolu c'est des secrets yoo xamante ne bon. mel na ni ngay kii donc mais li ma mën a wax daal mooy ne que mën naa ne presque par rapport ak modèle bi nga xam ne moom la ñu amoon presque ñu ngi ciy gagné 20 millions. Mhm. loolu moom c'est les documents sont là. donc loolu mu nekk loo xam ne président la république aussi da ko saluer parce que tey jii nii fépp foo nga xamante ne mënoon nga fa am ñaari case yu ak ancien modèle bi tey mën nga fa am ñetti case yu tout petit ah donc loolu ah. aussi dafa nekk loo xamante ne dafa am solo torop donc euh, may insister aussi di wax ne que am na innovation yu bëri yoo xam ne ñu ngi koy def mhm. programme informatique bi yàggul dara àndu nañu ak directeur général ARTP mu inauguré lu ñuy wax salle multimédia yi et ça mhm. concerne 300 casiers tout petit mhm. donc loolu aussi dafa am solo programme nutrition bi avec euh, cellule de lutte contre la malnutrition lu ñuy def daal pour xeex li nga xam ne mooy xiiboon ci xale yi ndax ñëpp xam nañ ne xiiboon bu ñu koy wax ci réew mi ñi nga xam ne ñoom la gën a touché c'est les enfants âgés de 0 à 5 ak ñi nga xam ne mooy jigéen yi nga xam ne waruñu euh, wax euh, da ngeen koy def da ngeen koy diviser en trois sections. mu mel ni kon man ça me rappelle euh, euh, jardin d'enfants classique yi nga xam ne am na fi. ban différence. Mhm. ci wàllu pédagogie. Mhm. ngeen indi ci xale yi nga xam ne ñu ngi foofu. Mhm. te itam yan xale ñooy intégrer la case des tout petits est-ce que c'est payant ñan ñoo mën a indi seen doom. dañ fay fanaan duñ fa fanaan. comment okay. ça se passe voilà merci beaucoup euh, côté côté côté côté côté paiement bi mën naa wax ne que lépp dañ ko démocratiser au fait dañu bàyyi communauté yi parce que gox bu nekk ña fa nekk ñoo xam la mën la seen doole àttan donc communauté bi à travers le comité de gestion installé ñoom ñooy toog réalité gox bi décidé ne que mille francs la ñuy fay wala 1000 francs la ñuy fay wala 6000 la ñuy fay wala 7000 la ñuy fay. Mhm. foog naa case bi fi gën a cher mooy case bi nga xam ne moo nekk Ouest Foire ak bu nekk VDN yooyu ay 6000 la ñuy fay ay mille te lool c'est très normal par rapport à la zone mais boo wàccee ci yeneen gox yëpp mën naa ne ay 3000 francs 2000 mille francs am na gox yoo xam ne sax boo demee ci fond fond Sénégal. Mhm. nit ñi dañuy naan parents yi nañu contribuer en nature. Mhm. ku am ceeb na nga andi ku ñebe am ah ñebe na nga ah andi. pour que cantine bi gën a mën a fonctionner. concerné donc approche boobu aussi dañ koy dañ koy saluer euh, case bi aussi euh, mën naa wax ne que c'est partout mais ñun dañu privilégier zones yi nga xam ne c'est les zones périurbaines ak zones yi nga xam ne c'est les zones rurales donc zone rurale mooy gox yi nga xamante ne peut-être ñi fay dund amuñu possibilité fayant seen doom yi jardin d'enfants privé amaan na sax duñ ko fa gis mhm. moo tax ñun euh, construction yi nga xam ne def nañu ko yépp dañuy insister pour li nga xam ne moom mooy gox yi nga xam ne ñoo ci kaw gi au moins ñoom ñoo xam ne que aujourd'hui euh, préscolarisation nekkatul luxe mais nécessité la mhm. parce que tey jii nii boo buggee xale yi suba ñu am niveau bu élevé mais aussi ñu dindi complexe bii nekk ci ñoom parce que xale dina juddu complexe mhm. doo xam li ko waral mhm. mais bu jaaree jardin day relax day ubbeeku day gën a libre ñëw mën a fow ak yow wax ak yow donc loolu yëpp dafa nekk loo xamante ne aussi dañ ci war a dimbali li nga xam ne moom mooy askan wi Thérèse mhm. maa ngi leen nuyu man benn question laa amoon mhm. par rapport ak euh, case des tout petits yi mhm. euh, dama seetlu parce que fi ma njëkkoon dëkk am na fa benn euh, temps année scolaire ok dafay marché mais dama seetlu en tout cas foofu temps vacances dancing lañ koy def baalukaay aan aan aan waaw léegi man mus daf ma mus a jaaxal nag quand parce que xaw ma woon euh, je me disais que euh, su école tëjee normalement dañuy tëj euh, dañuy dañuy tëj affaire yi mais su ma gisee ne que ne par exemple yenn saa yi am na fa ay entraînement karaté ci cours bi yu may gis je veux dire après jàng xale yi beneen utilisation la ñuy def en tout cas ci case des tout petits je rappelle que ne foofu rek laa ko gisagum si si mhm. case des tout petits yooyu mhm. donc ma bëggoon aussi euh, poser question boobu est-ce mhm. que est-ce euh, est euh, par rapport à ça parce que foofu moom c'est très réputé que nit ñi temps vacances moom tali bi sax doo mën a jàll parce que dañ dañ ko def carrément baal baalukaay d'accord foofu damay préciser aussi que case des tout petits boo gis am na gardien boo xamante ne comité de gestion bi waa gox bi ñoom ñooy recruter gardien bi ñoom ñoo ko xool xam ko jël ko. Mhm. lii nga ma wax nag information la ba nga xamante ne de taille te man dinaa ci apporter les disposition nécessaire parce que école du baalukaay c'est deux choses différentes donc ma lay remercier bu baax ci ni nga ma ko livrer te yaakaar naa ne que euh, ñooñu dinañ gis réaction le niveau central parce que tey. Euh, école du pour baal. donc loolu aussi bu amee commité de gestion bi parce que même ci orientation bi nga xam ne gouvernement bi joxe na ko bu ñuy élaborer le paquet bi ñuy élaborer aussi lettre de politique sectorielle yi dañu ne l'école pour la communauté et par la communauté. Mhm. ça veut dire école bi nañu bàyyee na nekk njëriñu communauté bi mhm. mais aussi. pour mu nekk njëriñu communauté bi il faut bi impliqué wu ci gestion bi. Mhm. moo tax ñun suñu installé comité de gestion bi ba forme leen ba wax leen charte yi nga xam ci lañ war a tegu li ci des mooy subvention yi ñu leen di yónnee mais li nga wax nii dama la ciy sant ndax dina ci am xam naa taxawaay ba nga xamante ne dinañ ko saafara mhm. incha allah. Mhm. man damay ñëw ci Binta jàll li mu doon laaj léegi. mooy ndax xale yi dañuy fanaan wala dañuy dañuy dañ bu ñu paree dañuy dem. Euh, dañuy ñibbi. Euh, li nga xamante ni bëggoon naa xam aussi mooy évaluation bi c'est-à-dire xale yi xale tout tànk la lañu dañu ndaw waaye tamit boo duggee ci école wala nga dugg ci centre de formation boo mën di dugg mm-hmm. da ngay gis ni bu dee dafa am ay concours ci biir wala bu dee dafa am ay xale yoo xam ne ñoo gën a xarañ ñoom ñoo gën a euh, yore niveau boo xamante ne niveau bu mag la ci biir ñu leen di neexal ak yooyu yëpp ndax loolu day am ci biir euh, case des tout ci euh, tout à fait boo gisee d'abord pour peut-être répondre à la question xale yi du ñuy fanaan 13 heures la ñuy wàcc bon donc bu ñu la ñuy ñëw ci Euh, façon neexal yu ñuy defaral xale yi euh, bëri na euh, par exemple am na décision boo xam ne président de la république jël na ko par exemple saa yi bu ñuy def levée de couleur dañuy tànn benn école ñu yóbbu xale yi ñu participer ci levée des couleurs boobu hmm. façon neexal la te dañ ciy dund expérience dañ ciy gis expérience yoo xamante ne ñun dañuy gis xale yi nu mu leen di jaralee ñu yeewu suba teel pour dugg ci pale bi def levée des couleurs ak président Macky Sall nuyoontoog ñoom toog sax échanger ak moom donc loolu aussi dafa nekk loo xamante ne foog naa ñun ñii ñëpp ko amoon opportunité boobu noonu entre trois ans et cinq ans dugg ci biir pale bi visiter wax ak président donc euh, ak yeneen forme aussi parce que fête fin d'année dañuy am donc nu ne daal la ñuy la ñuy neexalee xale yi mm-hmm. mais côté évaluation bi ngay wax aussi je ne sais pas trop sa question ndax c'est pour xam seen niveau après bu ñu génnee école après parce que voilà. même neexal yooyu ci la bokk mhm. parce que bu mhm. dee dangay xool tey ji prytanée militaire euh, da ngay gis ne lu daan xew fii dañuy mhm. nan dañuy tànn xale yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a xarañ ñoom ñooy def lii ñoom ñooy def lii xam loolu day tax xale bi bëgg a def loolu comme li nga wax léegi lever des couleurs ñu ne tey ji xale yi nga xamante ne ñoo nekk ci kaw ñoo jël b wala tey ji gis nañu lépp lu ñuy jàng ñoom ñoo ci nekk ci kanam ñoom la ñuy tànn jël leen ñu dem defi loolu bu ñu paree ci loolu également affaire bi du yem foofu parce que topp lay doon mhm. après parce que xale bi nga xamante ne yàlla daf ko may mhm. euh, ci xelam mhm. tey jii ñu ne euh, dem na ba am tel diplôme dem na ba dem ci école supérieure tel te case des tout petits la jaaroon je pense que bien que loolu euh, lu lu kii la ci yow lu baax la ci suivi bi important am na benn élément boo xamante ni Thérèse ñu ngi ko def ci wàllu petite enfance parce que petite enfance ku ko wax rek dafay laale Adja Binta ak nga xamante ni moo jëm ci modèle case des seetaan ko juste après Euh, ñu def ci ay commentaires laataa ñuy dem euh, ci dëkk bi nga xam ne nii. yaay maire bi di Jareer. dëkk la boo mm. xamee ne nii euh, peut-être bu nekk Ndakaaru yi xamuñu ko mais tey dañ ko découvrir <laughs> waxtaanee ay ponk yu bari yoo xamante ni mm. soxal na la. Mm. ci li nga xamante ni moom la la dénk ñu xool ko. <coughs> mu nii gis nga fi may taxaw nii di wax ci marché bi ay mbaar la woon mbaar yoo xam ne suñ ci taxawee suñ ci jëfandikoo rek mu daanu waaye ñun mag nekk fi rek fi ma taxaw fii eh, macha allah dafa rafet kenn xamul. on reçoit des enfants de zéro à six ans euh, on, on a des activités euh, des activités euh, écrites comme le graphisme les logico-mathématiques les perceptivo-motricité et on fait la psychomotricité le matin avant et après on fait l'éducation musicale. xale doo ko danga koy éduquer wax ko li xew boo ko ko waxee benn yoon ñaari yoon ba ko ñetteel da ko jël man bala may lépp dama lay wax lu ma la jàngaloon kaay nga wax ko fii nga répété yëpp ba pare ñu soog a jàng. causerie yi fii lañ ko defee si case des tout bi xale yi laa fi nekkal ak jigéen wérul yi di seet seen pois fu ñu tollu ndax xiiboon nañ ndax xiiboonuñu ku ci xiiboon. dinaa la yebal ci poste de santé bi bu ñàgg lu ñu la war a defal ñu defal la ko. cellule de lutte contre la malnutrition ñoom ñoo ko financé en partenariat avec la direction de l'horticulture. ñoom ñoo ñëw fi jàngal ñu nan la ñuy daajee table yi. nan la ñuy defee produit yi ah, nan lañ koy jiwee nan lañ koy entretenir dinañu servir ci suñuy leçon SVT. aussi xale yi dinañ xam nan la ñuy arroser ay plantes. ndax ji rek taxul plante di produire. bay fi poivron. bàyyi fi laitue bàyyi fi mm, concombre bàyyi fi tomate ak aussi naana bu ñu bëggee togg si la ñuy ñëw wit xale yi mën ko lekk légume dafa baax si xale xale bi moom noonu la moom ba mu juddoo dañ ko utal parrain parrain bi mu ngi koy versé chaque weer cinq mille ci kiyam ba léegi am na soixante quinze mille kontaan nañ ci Case du Tout Petit bi ndax euh, nekk na loo xamante ne bi lu rafet ñëpp dañu ñëwee ci affaire boobu avec le nouveau modèle on se sent beaucoup plus à l'aise. Nous avons trois salles séparées, une grande salle polyvalente où, comme son nom est vraiment polyvalente. Nous organisons des, les activités de santé et nutrition, les différentes fêtes que nous organisons à l'école. Et ça sert aussi de lieu d'échange pour les, euh, les groupements de femmes et les groupements de jeunes aussi. Nous avons une cuisine, une réserve euh, pour le stockage des vivres, des toilettes et, et une grande cour. voilà mu ngoog pour éviter euh, werante ci modèle euh, yi nga wax sànq. Mm-hmm. donc njëriñam defe naa bëri na. Mm-hmm. surtout pour euh, ñi am njaboot ba pare. Mm-hmm. am ñu être moyen. comme tu as dit pour yóbbu leen peut-être ci ay école yooyu. donc lii njëriñ la pour ñoom. Euh, non seulement njëriñ la pour ñoom. mais aussi dafa am ay orientation yu bees yoo xamante ne Nations Unies dañ ko tëral. Euh, muy accès à l'éducation pour tous. Mhm. Euh, ODD 4. Mhm. Euh, ñu insister ci ci petite enfance. Mhm. donc gouvernement Sénégal aussi am vraiment ay réformes yoo xam ne ñu ngi koy def. pour gën a dimbale cible bi. parce que Pape Cheikh étudiants yi suñu kontaanul dinañ ko dañ koy wone ci mbedd bi. Mm-hmm. jigéen ñi bu ñu kontaanul yuuxu nañ ba am seen parité. Mm-hmm. mais xale yu ndaw yi mën naa la ne tey Sénégal ñu ngi ci taux brut de préscolarisation boo xam mu ngi ci 17 virgule 8 pour cent mu nekk taux bu faible nag moo tax tey ñun ñu def défi pour tabax case tu petit yi partout. mais aussi inciter partenaires yi aussi ñoom ñëpp ñu jàpp ci. pour gën a dimbale yaay yi ndax yaay bu nekk boo xëyee liggéey say doom ñu nekkee ci condition yu baax sa xel dina dal. Mhm. Mhm. voilà donc euh, am na itam ay association ci ci koñ yi ay mbootaay ak yooyu yoo xamante ne ñu ngi activé bu baax ñu ngi euh, activé bu baax te xaaruñu ku leen jàppale est-ce que ñoom itam am na ay collaboration yoo xamante ni yaa ngi koy def ak ñoom. bien sûr parce que comme lu mel ni salle polyvalent bi. Euh, salle polyvalente bi mën naa ne presque femmes yi nga xam ne noo nekk ci quartier bi. Mhm. non seulement ñoom dañuy participer ci gestion case bi. Mhm. mais ñoom aussi suñu amee seen activité euh, de formation foofu lañ koy defee ci biir salle bi. Mhm. tey jii may fii may wax ak yéen euh, direction de l'alphabétisation wax naa leen que mettre naa à leur disposition salle polyvalente bi. polyvalente bi pour que ñi nga xamante ne ñoom ñooy jigéen ñi nga xam ne. dañuy jàng alphabétisation ci yenn gox yi te des fois dañu am problème mu saal. Mhm. ñu koy utiliser heure yi nga xam ne xale yi duñ fa nekk. Mhm. donc loolu yëpp pour mutualiser nos forces la. Mhm. pour mën a gën a apporter des solutions au problème des. Mm-hmm. population. Mm-hmm. d'accord mm-hmm. dañuy wax euh, c'est bien aussi de de d'innover. mais aussi euh, ñuy euh, ñuy communiquer autour de ce que vous faites c'est bien. pour vulgariser li nga xamante ni yéen a koy def. parce que nee nga sànq. case des tout petits bu gën a cher c'est francs. kon francs yaakaar naa c'est abordable. c'est à la portée de tout le monde. mais il faut que parents yi aussi. am case des tout petits am na. mais je trouve que man case des tout petits on n'en parle pas beaucoup. très important. tout à bon loolu aussi xanaa ñu gën ci taxaw rek gën a yokk communication bi mais mën naa ne ci yenn gox yi. Hmm. dañu am sax problème. ci effectif yi ndax effectif yi day dem ba ba ba jéggi dayoo. Hmm, hmm, ñun kay foog naa défi bi mooy ñu gën a yokk tabax yi. surtout fi nga xam ne mooy gox yi nga xam ne ñoo gën a sori. parce comme ni ma ko waxee léegi rek nekkatul un luxe. mais c'est une nécessité. Mhm. c'est une nécessité dans la mesure où ku am sa doom mu def préscolaire nga am beneen doom deful préscolaire bu ñu demee ba BFM di nga gis différence bi. waaw mhm. voilà donc balaa ñuy dem jareer euh, dama bëggoon euh, fekkaat euh, soxna Aïda. Mhm. ayda mu bàyyi moom it mu waat ñu tuuti ci kanamu Thérèse fi nga xamante ni mooy Medina Baye Kaolack moom bëri na ay ay case tout petit suma juumul. Kaolack bëri na ay cases tout petit bu baax a baax. yéen a yéen a ngi gëstu itam di def euh, may wax ak yow nii am na bu ñu tabax gàmbul mm-hmm. Gambul mu ngi nekk à 20 kilomètres de de de Kaolack. Mm-hmm, mm-hmm. am na yu ñuy waaj aussi Sibassor ak Dia. am na aussi biir Nioro. bu ñu def euh, Paos Koto. Euh, ak am na beneen commune de. Kiiwaay Kiiwaay fi Ñaseen yi dëkk. Léona maire non non du Léona. Taïba Niassène Taïba Niassène Taïba Niassène waaw waaw foofu yëpp ñu ngi en construction en chantier mhm. waaw. j'aimerais bien bu Aïda noppee nga waxtaan. ñu Aïda ma koy ziyaar waaw macha allah. parce mhm. que xamuma mais mhm. mook sama borom kër ñoo bokk kër Cheikh. maamul insa macha allah macha allah macha allah. <laughs> maa ngi lay bëggee Aïda. macha allah bëggoon naa ñu waxtaan ci pédagogie parce que euh, ñu bëri dañoo foog ni. Euh, mm-hmm. euh, petite enfance ci école yi ñuy jàngee li ñu tuddee fii Sénégal jardin mm-hmm. d'enfant. Mm-hmm. xale yi dañu fay dem di fo. alors que foowuñu. ci école yu baax yu mag yi. dañu leen di jàngal. nga xam ne léegi xale yi sax defatuñu séy. ndax programme yu am solo. donc j'aimerais bien savoir ci kanam ndax am na ay programme pédagogique yoo xamante ni teg nañu ko. et bien précisé pour xale yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci case des tout petits yi en daa ñu bàyyiwaat leen ak euh, soxna Aida mu mayaat ñu leneen loo xamante ni euh, mën nañ cee euh, barkeelu tey ci guddi gi ci quartier général alhamdulilah Pape Cheikh ñu ngi jéggalu macha allah balaa ñuy wax dara ndax xel day fattu mm-hmm, mm-hmm. dama bëgg nuyoo gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi mm-hmm. di sant suñu sëriñ Cheikh Ahmada Tidiane. Mm-hmm. di sant suñ buntu ci moom moo laa Cheikh Ibrahim. Euh, damay wax ne maa ngi gërëm waa dina Baye yëpp di leen ziar balaa balaa may fàtte. Mm-hmm. Euh, ñu ngi gërëm waa dina Baye yëpp di ci jiital xalifa bi. Mm-hmm. Euh, di suñu sëriñ. di suñ lépp di papa Cheikh Tidiane. Mm-hmm. ñu koy ñaanal yàlla yàlla guddal fanam wéral ko. ak suñu yaay Fatimata Zahra. Mm-hmm. ak mère bay ak mboolem doomi bay macha allah bu ñu fa jógee ñëw fii dakaar ñu ngi mm-hmm. gërëm di nuyu seen xalifa euh, fii ci dakaar muy Cheikh Mouhamadul Amin Niass. di Baba Lamine Niass. nga xam ne barki Dembo Ndiaye la yëkkati billet Màkka teg ko sama loxo di doomu Cheikh al Islam ne ma Aïda ren dama lay yóbbu Màkka. Euh, bi mu ko defee Zeyda Musu Koro Mbay tamit maa ngi koy gërëm suma yaay la. nit ku baax moom it ne ma dama lay yóbbu fees nga. ziyaare ji Cheikh Ahmada mm-hmm. Tidiane. Mm-hmm. donc ñu ngi gërëm ñooñ ñëpp ak ajaratu suñu yaay. Mm-hmm. Euh, Fat Samba Medina bàyyi yëpp daal bàyyiwuñ kenn. fàttewuma nag sama cheikh cheikh Murabbi. Eh, di bàyyi Cheikh Mamour Insa Diop. Mhm. ndax lii yëpp tey moom la. moom ma yar ci lii. moom ma moom ma gindi moom ma tettee. Mhm. ma nekk ci lii ba tey lii fekk ma ci kon ñu ngi mhm. koy gërëm bu baax a baax ak waa xadara bi yépp di gërëm sama borom kër mi nga xam ne mu may jàppale. moom tam xadaraam la yore mu xadamu Cheikh la. di Cheikh Abdoulaye Ndaw maa ngi gërëm samay wayjur. sama yaay sama pàppa ak samay mbokk yépp mbokk taalibe yi ak xale yi ma àndal nii xam ngeen festival bi ni muy demee. wallaahi xale yi dañuy sonn bay bugg a dee nekk sama ginnaaw. donc dañ leen di gërëm bu baax a baax a baax. Euh, du ma teg nag du ma commencé te gërëmuma. fàttaliku tamit suñu yaay ji nga xam ne ñu ak ñoom ñoo ñun moom ñoo nekkoon fii daaw. Mhm. muy tata Degen Chimère. Mhm. di suñu yaay di suñu soppee. Mhm. di yaay àdduna bi yëpp mën naa wax loolu di soppee ñëpp. wax dëgg yàlla yàlla bu ko cat. jiitu ci bàmmeelam ku baax la woon te ku bëggoon yàlla la ku bëgg yë yëngatuy Seydina Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam mm, mm. sopp ñu sopp sama rakk ji may àndal mm-hmm. ak xale yi muy fàllu mii mm-hmm. boo waxee mu ne fàllu daf may daaneel donc ñun ñëpp ñu ngi koy ñu ngi koy ñaanal mm-hmm. ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax a baax di la gërëm yow Pape Cheikh baax a baax a baax <laughs> di gërëm suñu muxadam bi fi jógee Cheikh Ibrahima Diassé di nuyu euh, Cheikh Pape Cheikh Pape Anne oustaz ma di ko gërëm mhm. euh, ci xam-xam bu sell bi macha allah ak dal gi mu mhm. àndal mhm. kontaan nañ ci moom di nuyu waa plateau bi yëpp euh, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar noo def ci euh, cofeel cofeel gi sénégalais yi am ci yow Mm-hmm. cofeel gi Sénégal yëpp am ci yow noo koy noo koy noo koy dundee xaw ma xamuma nan laa la ko mën a laajee en fait. alhamdulilah xanaa sant yàlla rek laa koy dundee. Uh-huh. parce que tey bu fekkee cofeel googu am na it ci yàlla la jógee ko. Mm-hmm. ndax uh, mel na ni man la waaye baat bi may tudd moom lañ sopp man damay wax ne képp ku ma sopp rek. damay jàpp ne kii ku bëgg yàlla la mm-hmm. ku bëgg yàlla la parce que ci kàllaama bi nga xam ne moom nga yëkkati mm-hmm. ci la la nit ñi di soppee mm-hmm. bu doon man ak man rek la duñ ma xam duñ ma sopp dëgg la waaye tudd yàlla gi moo moom la nit ñi di bëgg moo tax ñu lay sopp di murit nag tiijaan ñépp wax dëgg yàlla may wax ne man am na ñoo xam ne da ngay gis da ngay dox ba ci yàgg wala nga dem programme nga gis ku dajeeg yow la nga amula jooy ne la man murit laa waaye dama laa bëgg te yàlla tax donc loolu cosaan gi yëpp mooy yàlla suñu borom kon. Mhm. ñu ngi koy sante yàlla. Euh, di gërëm euh, yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ñu ngi gërëm um, umma islamiya bi yëpp. macha allah kon ñu déglu la soxna Aïda. la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha مركزي بربيا وجوبي فيا في المعارف لم ترما وقد قصر الأقطاب عن درك شاهيا بفضل إله ناسي جل جلاله وحب رسول الله تعالى نبيا ألفت يمينا إذني لا يحبني سوى أزل والعكس في عالي بعدها وقد علم الأقوام أني قديمه فوصل حبيب الله يلفى بوصلها وما قلت قولي شاتعا متبجحا وما مسني سكرا يخيب أهليا وإن قدوتي للأنام سادتنا فلم يشق يوما منا رعاني وقتيا وما قلت هذا دون إذن وإنني لا أكتم سرا لا يباح لخيريا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 وجلالا وأبصرت من زمان جدا وجمالا جمالك أنس هيبة ومحبتنا وأنت أتام المرسلين كمالا بين وكلهم بين وكلهم هذا المكارم والأولى وما كإمام العاشمية قسالا بين محمد baay ne muhammadun yaa xayral anaami wasiilati abaaka ilaahi ma yafuutu maqaala wa anta wa abtal biida wal suuda fantaha ilayka qadimun ra ma minka manala wa anika khayral alamina wasilati munili lana al yawmi la rahib bi na waala wata yammani bay ne wata yammani hubbika sirtu mu jam ji man alal barri wal ajwa arumu wisaala fa qadartu awtaani wa ahli wa usrati ajubul falala mashku qattu kalala bay ne bi kawlaqa bay ne bi Kaolack maratan bi baari sa daaril fa siqiina gusaala bi baljika yawman summa yawman tajawulan bi gairatin afqi hunaka jamala li abdil malikil xarmi qad jitu mawinan وما لندن أبقى فأبقى يا ببيروت عن حلشينا بالشرق قادما رسول إلى العرش وهو تعالى كراشي بها قلبت أعظم وادتي هم نصر دين النبي فعالا قد اقتسموا بأبل حبل محمد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 la ilaha illallah la la la ilaha illallah la ilaha illallah ci yàlla allah yàlla yàlla yàlla la ilaha la ilaha illallah ci yàlla la ilaha illallah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 la ilaha illallah la ilaha illallah macha allah <laughs> Oustaz li li li li li li li naan c'est fort c'est fort <laughs> Oustaz xam nga kàddu borom bi subhanahu wa taala maanaam dafa diis te Aïda bi mu da bi mu doo léegi kàddu yàlla rek la ñu wax mhm. ak li seexal islam wax rasulullah sallallahu alayhi wa li mu wax sànq coono yi seexal islam jànkoonteel réew mu ne mu dem fa tagg fa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaye kaddu borom bi subhanahu wa taala kaddu la goo xam ni dafay laabal xol xam nga kalimatu laa ilaha illallah boo koy déglu sa xol dafay laab fay ne fa fi kulli ayin qatabata bi nimatina ñas ila kulli ayin qad bazalta manala mu ne alawtul bihaara zaxiraati wa innani alawtul qura wal mudna bal haaji baala aruumu riddal baari li nusrati diini wa ubriisu lil jiilil jadiidi mishaala bayna dayfun haliilun shaa'ibun mutahammisun ñas liyan دينا لا يريد قتالا macha allah macha allah soxna Aida yàlla na yàlla na yàlla wéral baal mag ñi nag dañuy dem dañuy demee dimension waaw dem ba dañuy àgg ci déyanteeg borom bi subhanahu wa taala wallaahi jege ko lool jege ko xam ni li soxna Aida way léegi cheikh al islam wax ko hmm. yonent yi jeex nañ mais missionnaire yi jeexunu wallaahi ala inna awliya allahi laa xawfun alayhim waaye wala hum yaxzanuuna te sidina Muhammad dafa wax ni yi yonent fi eh, borom xam-xam yi ñoo fi wutu yonent yi mais si al islam déyante ga muy dem ba déyante borom bi subhanahu wa taala ci kalimatu laa ilaha illallah dem ba yàlla ci boppam sàkku pour moom si al islam radiallahu anhu mu tasaare l'islam bi mu tasaare diina ji mu yeesalaat diina ji jëlaat ndaw ñu dugal ci ñoom kalimatu laa ilaha illallah nga xool nga xool radiallahu anhu Euh, loolu nga xam ni borom bi mu ni mu ni euh, ndimbal googu mhm. yàlla sant ko mission boobu mhm. waaye yàlla jàppale ko ci mission boobu mhm. ci darajee rasulullah yi moo tax mu saxal ci xoolu ndaw ñi kalimatu laa ilaha illallah moo tax it faydu tijaan daal di bumbu ci macha allah moo moo tax kaddu yi nga xamante ni day daw yaram à chaque fois ñu dégg ko dellul balaa ñu lay delloo dellul balaa ñu lay delloo xam nga euh, mag ñi sax dañ daan wax ni nit warul jóge ci yàlla sax ba fay la fi kuy dem bàyyi la ci borom bi daf ñuy jiital ba nga xam ni waaw yenn saa yi sax dañuy dañuy rëcc ba fàtte dellu déedéet xam nga siiru seera zamanikum ah. nit mën sa ci sa biir liggéey sax mm-hmm. mën ngaa nekk ci yàlla bant bii nga yëkkat di ko xool ne ci di de mm-hmm. ak wax kàddu gi nga yëkkati mm-hmm. ak ña ngay waxal ak lu la jamono këf këf këf këf ak ci looy mën a ne bàyyil xel ni yàgg borom bi subhanahu wa taala yéen a nekk bàyyil xel ni borom bët bu réy bi laa taaxuzuhu du ko jot sinatun ngëmintu wala noomu du ci àggi nelaw ci xarakaat yitte booy mën a dox rek jàppal yàgg yàlla macha allah macha allah Cheikh loolu loolu mooy kii yàlla du ñu yónni ci ñun ñii yàlla du ñu yónni dafa yónni jaam ñi waaye ki la yónni toog fa mu la yónnee xa euh, jig jiitu la fa mu la yónni ànd ak yow ci yónneen bi loolu lu ba ci yónneen bi yaakaar ni dala ko muñal muñal loolu danay mujje wallaahi wallaahi nañu defaraat toogaay te sellal bu baax baax te xam ni lu fi waay def rek. Mhm. ci yàlla mi ngi lay xaar. wallaahi ay nag bu dee way. Mhm. xel yëpp xol yëpp ay tooy. ndax mhm. ndaxte lu jóge ci xol rek. ci xol lay dellu te moom li mu woy day jóge ci xolam. moo tax ci xol nit ñi lay dellu moo tax nit ñiy jooy. macha allah jërëjëf soxna Aida kontaan nañu bu baax. Euh, yàlla na yàlla wéral baat bi loolu la ñu ñaan léegi mais ndokkeel suñu ay sang yoo xamante ni mhm. ñu ngi ñaan euh, Baye xalifa Dem ñu ngi koy euh, ndokkeel ak imam Cheikh Tidiane Cissé mhm. fàttewuñu itam soxnaam di suñu yaay di suñu wayjur di soxna Fat Samb yaayu cheikh yi Adja dégg ngeen chimère ba bu nekk fii waaye yaa ngi fi ñu ngi lay ndokkeel bu baax kon soxna ayda rendez-vous ak yow ëllëg la ci festival salaam bi bu soobee yàlla jërëjëf mu ngoog kon euh, fàttali leen ni bu ñu noppee léegi itam di ngeen dundaat euh, li des ci festival salaam bi en attendant ñu delluwaat ak euh, soxna Thérèse Faye merci encore d'être là 1h29 mooy doog a jot ñu àggale yi ak yow li nga xamee ni bëggoon nañu ko waxtaane ci ay ponk waaye fàttaliwaat rek mbokk yi loolu itam jar na leeral mm-hmm. que tàmbali nañu période de pré campagne ndax ñoo ngi le 9 le 9 la ñu woo la ñu waxoon mm-hmm. bu wi jotee donc ñun daañu jéem rek ngir éviter lépp loo xamante ni CNRA daf koy tere ndax nag ñoom ñooy suñuy kilifa ñoom daanaka ñoom ñooy Euh, euh, ñoo ñuy wax lu ñu war a def ak lu ñu war ta def euh, te lépp loo xamante ni teg nañu ko ci wàllu yoon ñun dañu koy respecté quartier général nag xam ngeen ni place la boo xamee ni kilifa yëpp fii la ñuy ndogoo mm-hmm. waaye teewul eh? ñoom itam seen i décision ñun il faut que ñu tegu ci <laughs> loolu itam c'est bon a préciser que toll nañu actuellement depuis cinq minuit ci mm-hmm. période de pré-campagne 30 mm-hmm. jours avant avant euh, campagne électorale bi di door. Uh-huh. dafay am période euh, bi ñuy wax euh, pré campagne. Mm-hmm. moo tax CNRA génnee na kayit gi démb. Mm-hmm. ne propagande tere nañ ko ci rajo yi ak ci télévision yi. moo xam public la. wala privé la. maanaam toog daal ci rajo bi. di naan woteelal kii. Mhm. wala àndal ak kii. Mhm. jeex na. Mhm. investiture yi jeex na. nañu nañu homme politique yi dimbale. <laughs> ndax bu ñu woowee. nañu dimbale <laughs> xam nga xam nga daaw moo tax mu ne yoroon ko dugal avant minuit xam nga daaw on a pas de problème. waaw ñëpp la ñu recevoir. waaw waxtaanee ak ñëpp li may faral di wax rek télévision Futur Média. du télé pro gouvernement. du télé pro opposition. du télé Youssou Ndour du télé Macky du télé euh, du du télé euh, télé euh, Macron voilà donc on est là pour tout le peuple professionnel voilà dañuy jéem rek en tout cas on est on est ak euh, téléspectateurs yi kontaan nañu encore euh, ci seen fidélité ak ni ngeen taamoo quartier général ma fàttaliwaat leen ni mooy premier talk show fii ci Sénégal mhm. ñu jàll ci question politique yi voilà tout en tenant compte de cette période <laughs> pré-campagne qui vient de démarrer pré-campagne voilà. <laughs> Euh, on va parler euh, investiture peut-être wala ñu wax ci COJER ba pare <laughs> comme vous voulez COJER yaa ko jiite waaw la neexee te COJER moom mhm. ci xeex la dëkkee guddi defante rek loolu laa yaakaar naa moom moom moom la ñu gën a contesté si ah COJER ah xeex guddi xeex bëccëg lan lenn itam de bëggoon naa ko leeral. Mhm. Sénégalais yi may seetaan yëpp. Euh, histoire politique u Sénégal euh, je pense que bu ñaaree ñettul foog naa am na ay mag yu ñuy seetaan. Mhm. jigéen bu jiitee mhm. jeunesse politique parti au pouvoir. Euh, su ma ci jiituwul foog naa nekk si li ma xam. ak si li mu nga xamante ne aussi moom laa xam ci champ politique bi. bu ñu waxee COJER. mu nekk structure ndaw mhm. ñi nga xam ne ñoo nekk ci parti président Macky mhm. euh, mu nekk tamit structure bu gën a métti ci structure parti politique yi te képp ku jaar UJTL xam nga li may wax ku jaar mouvement jeunesse socialiste xam nga li ma wax ku jaar ci yeneen structure de jeunes aussi xam nga li may wax mhm. ku jaar mouvement associatif aussi xam nga li may wax parce que c'est la tranche d'âge mi nga xam ne euh, moo gën a métti te pour nga maîtriser ko Euh, pour nga normer leen dafa métti. Euh, may nuyu au passage ndaw yi nga xam ne ñu ngi may seetaan yëpp. Euh, ma leen di xamal ne que ba Chine ñoom ñëpp ñu ngi may contacter avant ma dugg ci émission bi. Mhm. ñoom ñëpp ñu ngi leen di seetaan ñu ngi seetaan TFM. Mhm. Espagne ak ñëpp. Mhm. ak ñi nga xam ne ñoo nekk Sénégal cinq départements yi donc côté boobu ñun li nga xam ne moo am solo xam nañ ne que président Macky bu amee ndaw yoo xam ne ñoo ko porté depuis le début ñun ñii la la jeunesse. te kën gëmuñu woon nag man je me souviens bi nga xamante ne président mu ngi waaj a am ay problème assemblée nationale ma teg structure bi ñuy wax jeunesse ouverte à Macky Sall tuddee ko jom jamono yooyu biir université boo daan dox dañ lay naan ñii dañuy gént donc loolu tamit muy wane nekk rek ngëm-ngëm moo am solo parce que bu ñu daan dox di dugg ci biir amphithéâtre yi di dugg ci restaurant yi di def suñuy propagande mooy lii CNRA di tere. loolu tamit ñu koy nangu parce que mm. ay citoyen lañ te aussi mm. dañu war a respecter droit yi nga xam ne tegu ci yoon loolu dama cee ànd ak mm-hmm. mm-hmm. bu ñu ñëwee ci question bi dama jàpp nekk rek moment la juste ba nga xamante ne rek li ñuy naan boo duggee ci avion sax day am moment boo xam zone de turbulence day am mm-hmm. li am solo tey mooy ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ci parti bi xam nañ li nga xam ne moom mooy objectif général bi ñu visé. ñoo faloon président Macky Sall ñoo koy falaat. du fichier électoral bi ngeen xamul et mm. composé de jeunes donc loolu dafa am mission boo xam ne ndaw ñi dañ koo war a liggéey te ñu ngi ci mm-hmm. mission yooyu mooy lan massifier parti bi mm. participer aussi à la formation des militants et des mm-hmm. militantes mm-hmm. mais également taxaw mobiliser nit ñi mais aussi occuper li nga xam ne moom mooy bataay médiatique bi mu am une innovation bu am ren ci élection bi nii chaque jour dama koy wax kilifa yi nga xam ne ñoom lañ bokkal parti Ablaye Wade am na chance fekkeewul réseaux sociaux Abdou Diouf am na chance fekkewul réseaux sociaux wala Ablaye Wade même bu koy fekkee sax nu mu intense nii demewutoon noonu mais ñun il faut nag set que tey suñu malchance mooy le fait que tey WhatsApp a ngi fi Facebook a ngi fi Twitter a ngi fi ak yeneen ak yeneen. foofu kay transparence donc dafa nekk loo xamante ne tey lii xew fii quartier général waa Chine ñu ngi koy ah, seetaan waa Inde ñu ngi koy seetaan ñëpp a ngi koy seetaan ah, ah, donc d'où ça demande quand même de nouveaux mécanismes yoo xam ne moom la nit ñi war a gën a adapté approprier ko pour mun gën ko mën a intégrer ci dispositif bi nga xam moom lañ mettre en place. mais wax nga léegi lu am solo maanaam wàllu formation. dafa mel ni formation boobu dafa manqué au sein des partis politiques parce que tey bu jeunes yi di réunir. Mhm. dañ leen di xaar autour de débat d'idées. Mhm. loo xamante ne dina ngeen porter seen mission ensemble. Mhm. mais tey COJER bu ñuy dajee ay xeer ñoo fay jëlee. bëri na coow ñu ne tendance <laughs> tendance Thérèse fay Diouf. Ah. tendance euh, ministre Mame Mbaye ba keroog président de la République ci seen. Euh, euh, rencontre bi ngeen mujj def. ca Mbour ca mhm. nee na bu ngeen déggoowul dootu fa ñëwati. Mhm. te itam euh, euh, bu ngeen bëggee Mame Mbaye Niang euh, rester ministre ministre de la République il faut ngeen déggoo. te mhm. itam nañu rangé wu sa ginnaaw ba keroog ñu muy joxe joxewaat autorisation ñu falaat keneen. loolu yëpp dama koy tënk rek ci li ma wax léegi day am moment yoo xam ne parce que politique quand dafa ànd ak lu ñuy wax au-delà de l'objectif général qui est là ñëpp. nangu taxaw président Macky Sall mooy suñu président parti mooy président coalition Benno Bokk Yaakaar mais ci ne ci suuf xëy na di nga am ay. système wala ambition yoo ciy am. mais li am solo man li weesu du ma ci ñëwaat li am solo tey muy ministre Mame Mbaye Niang ma ko nuyu au passage sama frère la parce que ba mu méttee démb fu mu dajee musiba rek euh, fu ma dajee musiba moom dajee nag fa lu ko rab mhm. ça veut dire que ni ma xeexee noonu la xeexee keneen tamit noonu la xeexee. day am moment nag ñu kii mais bi nga xam ne kilifa bi nga xam ne moom moo ñu yitteel moom moo ñu jiite woo ñu wax ak ñun toog nañu te toog boobu mooy wéy bu fii may wax ak yow te mooy continuer ndax tey li nga xam ne moom la ñu comprendre te ñëpp xam ko muy nit mënul wax ne que da nga bëgg président Macky Sall ba pare lu mu bëgg nga bëgg ko bañ. et moo tax tey jii nii ñun ñëpp ñu ànd ci dynamique liggéeyal ko ci lu mu bëgg. ñoom képp ku mën a taxaw aussi rangé wu ci derrière Thérèse je le dis defoo ko ngir jëmm Thérèse mais di nga ko def ngir jëmm ki nga xam ne moo ñu jiite di président Macky Sall na mu ne madame Badiane moo ñu jiite moo jiite jigéen ñi jigéen ñi nangu ko diw moo jiite cadre yi cadre yi nangu ko enseignant yi pare ndaw ñi aussi ci dynamique boobu lañ ne mais surtout euh, ñun lu ñuy def lu bëri ci parti bi euh, peut-être euh, xëy na violence lu ñuy naan lu lu lu li gën a fës souvent mooy li nga xamante ne du lu intéressé système bi mmh. mais ñun lu ñuy def ci ay activités de formation kenn xamul nu mu toll leadership politique bu yàggul dara Adja Ndioro moo ko ñëw on a regroupé plus de 200 jeunes filles fi nga xam ne moom mooy teexu bi ñëpp toog ñu wax leen li listewaat ay jaar-jaaru ay femmes politiques wax aussi lan la Sénégal def ci parité tey nekk deuxième place u niveau mondial loolu tamit nekk loo xamante ne il faut jeunesse yi ñu gën di ko développer mais côté formation ñu ngi koy def mais peut-être timidement fi may d'accord ak yow. mooy par exemple nu ñu gisee woon ay école du parti au temps du parti socialiste mu am des programmes bien ficelés et bien développés nit ñi di ko dox mhm. Mhm. ci réew yi mu leen di jaral benn déploiement bi xëy na tey parti politique yi de façon général te wuñ noonu mhm. mais ñun au sein de la l'APR xam nañ ne que tey nit mënoo jàng dem université am yenn diplôme yi dugg ci politique nekk ci di ci liggéey te jéem a wu à la formation même s'il n'y a pas un système formel au sein du parti. Mm-hmm. di nga intéressé wu lii waa fond euh, fondation Neumann di def fondation Frédéric Ebert euh, et cetera et cetera. donc mais euh, Thérèse man man damay rek euh, abondé ci même sens que Binta Diallo. Mhm. Euh, wax naa ne Mbour maa ngi fa woon jour boobu noonu président mosuma ko gis mu mer mais jour boobu da taxaw ay centaine de kilomètres di sentir kanam gi di sens. Mhm. am na ñu sant ñu wax ne da nga war a jóge ci bopp COJER. président mhm. moom mu ne moom moo la fa teg saa yu ko soobee la la fay jëlee mais yow personnellement. en âme et conscience est-ce que amoo envie bàyyi wala kañ nga bëgg a bàyyi COJER parce que léegi tamit màgg nga. Euh, tout à fait <laughs> même si âge bi ñu may prêteel euh, egguma fa. Ah parce que euh, maa ngi soog a dugg maa ngi soog a dugg 36 ans. donc lu sax pour comparer parce mhm. que je sais que Abdou bu muy quitté âge limite bi c'est 35 ans. Euh, c'est 35 ans mais ba tey si suñu texte parti encore une fois. amul âge limite bu ñu ne de tel à tel c'est que on dit que l'âge de la jeunesse c'est euh, bon jusqu'à 30 cinq ans mais par rapport ak sa question bi mais bu mu tollee foofu quand même da ngeen ko xeex bu ñu jëlee ko fa teg la fa on a comme l'impression <laughs> wu sax te li ma li li tontu ci kii mooy ne que euh, euh, ku xam mouvement de jeunesse nu mu méttee xam ne dafa am défi boo xam ne moo fi nekk juste ñu bëgg ko relever défi boobu mooy lan président ñoo ko fal ñoo koy jàppale waat ba mu falu parce que ku ci ne dafa am sacrifice boo xam ne ak devoir boo nga xam ne sentir nga ko da nga ko bëgg a def c'est juste ça mais bu du doon contexte pré-élection yàlla xam na ne ko coono gi nekk ci COJER ak guddeeg bëccëg problème mu cinq département ak diaspora nga koy régler ak situation dëkk bi yor sa famille yor sa kër yor sa bureau war cee liggéey mais nooy def engagement militant aussi dafa am. te leader aussi bu fekkente ne danga nga ko bëgg te yàlla tax da ko war a liggéeyal te yàlla tax ci anam yu mu ko bëggee loolu kese moo ñu fi téye mais <laughs> bu dutoon loolu quand même je pense que on en a trop souffert parce que du lu mais tamit c'est par la première fois mu koy daj Thérèse à syndiqué à l'université man j'ai syndiqué pendant trois ans université syndicaliste bu mag laa woon grève naa lu ne def naa ko mais lii xew ni aussi du lu bees si man du lu bees mais li ma bëgg a wax rek am nga 36 ans kañ ngay dem Thérèse lu tax ngay accroché wu ci Cojer am na ñeneen ñu nekk sa ginnaaw. pourtant du question accroché wu <laughs> du question accroché wu. parce que foog naa ne que euh, président Macky Sall comme ni ma ko waxee léegi rek euh, mooy suñu président parti suñuy teg sa parti permettre ko structure bu ne mu teg fa nit heure boo fa waree wàcc mu wax la ko donc heure bu ma nee wàccal. billaay amaana sax 2019 sax duma xaar sax bu ñuy naan président wii président rek ma ne ko say a ngoog donc jéem a la xool koo xamante ne euh, eggali na ko mais tamit euh, di wax ne que damay santaat la jeunesse de la l'APR parce que ku ci ne yaa ngi def li nga war a def pour parti bi am ndam te loolu mooy li nga xam ne moom la ñu sasoo ak suñu président parti di ko dimbali aussi pour li nga xam ne moom la bëgg ci réew mi mu antoon Euh, mais Thérèse est-ce que xalaatoo ne problème boobu ce euh, leadership la bëgg a wax euh, au-delà même de Thérèse la personne mais euh, Thérèse le personnage politique euh, est-ce que xalaatoo ne c'est un problème au fond de leadership féminin parce que gis nañ fi histoire u jigéen ak politique la femme dans la politique la place de la femme dans la politique mm. et on sait que milieu politique milieu boo xamante ne góor yi ñoo ci primé am na tamit ay góor yoo xamante ne xëy na bëgguñu ay jigéen di leen jiite donc est-ce que loolu tamit du remettre en question la la place de la femme dans dans la dans la politique est-ce que c'est pas euh, image boobu de de jigéen buy jiite ay ndaw yu góor est-ce que du loolooy déranger au fond. en fait côté boobu li ma ciy wax rek euh, mooy euh, njiit boo gis ñëpp mënuñu nangu ñii dañuy nangu ñii bañ ay góor dinañ nangu ay jigéen dinañ nangu ay góor dinañ bañ ay jigéen dinañ. nangu li nga wax am na réalité parce que peut-être dans dans nos formation politique ku ci ne am nga loo ciy dund peut-être parce que tu es femme wala peut-être parce que tu es jeune. ok du rek sax. mais loolu du politique rek ah foog naa ne que représentation sociale yi nga xam ne ñoo nekk si ci si ci société bi ci ñun. Euh, mhm. muy loo xam ne ku nee dañ ko inculquer ci sa mhm. valeur mhm. jigéen dafa war a def nii xale dafa war a def nii. loolu dafa nekk loo xam ne daf ñuy topp. loolu c'est c'est c'est bien avant la politique et ça transcende même la mm. politique mais li nga xam ne moo ci am solo mooy ku ne li olof njaay di naan ku ne yaay xam noo tojee sa bopp ji nax situation bu tegu muy handicap yaay xool mécanisme yi ngay teg ba jéggi loolu jëm parce que tamit politique du chemin bu ñu la tracé rek ne la jëlal autorail bi rek dem Thiès de non non chaque fois am na ay montagnes yu la tegal am na ay xeer yu kii loolu nga nekk góor nga nekk jigéen danga koy am mais yow yaay am sa intelligence su bopp ak sa muusu bopp bu motee fulaak fayda nag nga wane fulaak fayda mhm, mhm. ba xeex li nga am jot ko jàll ci leneen di matt di ëff non du <laughs> question pànk baal naa la mais mais nga politique euh, du dañ lay tracé rek nga jaar ci autorail bi donc apparemment euh, du du lu président Macky Sall rek ngeen jaar ci non non au fait euh, dafa mel ni ci COJER noonu noonu la demee. voilà non euh, damay wax de façon général par exemple su ma la joxee euh, kaw président Macky Sall mun naa la ko jox. mais bu fekkente ne bi ko Ablaye Wade ne delloo ma assemblée nationale. Mm-hmm. Mm-hmm. bu doon defa nangu dem toog këram. mais est-ce que tey sénégalais dinañ gis ci moom estime bi tax mu créé APR ñu adhéré. Mm-hmm. ba pare mu dem nekk candidat élection présidentielle ñu voté ko. c'est parce que dafa xeex. foofu laay waxee. mais mais mais mais est-ce que débat de xawma nan laa ko mën a waxee. Euh, euh, débat débat débat des jeunes de Cogère. est-ce que yéen. Euh, mën ngeen mën ngeen def ba am liberté c'est-à-dire ngeen an ngeen ngeen indépendant di choisir seen bopp. Mhm. Euh, sans que président di ci intervenir voilà mu am débat d'idées par exemple. Mhm. ngeen di décider seen bopp. sans que di leen décider wala di mhm. de parti la mais que nag daa mer ba futu ah, oui ngeen liberté ak euh, aisance su tànnal seen bopp. mais je voilà balaa am liberté tànnal seen bopp. il faut mu am consensus autour de la personne morale de. Euh, de la structure. de la mais euh, mais euh, Thérèse amul consensus. mun nañu wax ne mi ngi nuyu sànq ma Mbaye Niang le ministre de la jeunesse. Mhm. mais mun naa wax ne ay nuyo de façade la parce que. Ah seen divergence dafa profonde. <laughs> Thérèse li nekk ci biir xolam waxu ko dafa mel ni moom dafa bëgg. il elle lorgne le fauteuil de Mame Mbaye Niang. mais danga may yëngal wala loo bëgg a def. <laughs> Mame Mbaye Niang nga soxla. parce que quand même jaareer <laughs> tamit sa base politique nga am nga base politique. Mm. liggéey nga loo xamante ne référendum yi mujj 80 pour cent nga fa am. Mame Mbaye Niang quoi qu'on dise nga xamuñu fan mooy base politique am. Mm-hmm. kon yow tamit xanaa bàyyil jàmbur tu vaux plus <laughs> même boo ko waxul tu vaux plus. Euh, bàyyil jàmbur kuy raam du yow tamit li <laughs> may wax rek mooy. <laughs> kuy raam du sa kër. Euh, yéen da ngeen a doy waar mais li ma li may wax foofu rek mooy. parce que euh, terrestre bi dafa bëri affaire di yéen a ngi Diagne Fada à l'époque parti démocratique sénégalais. mooy li ma la wax rek kuy raam du sëkk. du professionnel sama xam-xam bariwul ci wàllu politique ab sénégalais laa buy déglu rajo di déglu télé euh, mais ñoom euh, ni la meloon nag Fada. coow li bëri woon ba bëri woon lool biir PDS. ah euh, donc digganteem ak euh, yenn ci ay kilifa yu nekk APR daf may fàttali euh, jamonoy jamonoy PDS ak ak ak Fada ak Thérèse ah daa mel ni benn ñebe ci benn ñebe ci cin. Ah, c'est que c'est que ah. <laughs> c'est l'impression que j'ai moi. au fait au xam nga posture responsable des jeunes d'un parti politique. Mm-hmm. surtout un parti au pouvoir tant dundoo ko mënoo xam réalité bi. da bëri fougue daal. au delà de bëri fougue. pression bi nga xam ne mooy wàcc si yow. Mhm. ak réalité bi nga xamante ne ak euh, calcul politique yi nga xam ne ñooy am au niveau au niveau national. Mhm. am na lu ci bëri loo nga xamante ne day impacter yow ci sa fonctionnement au niveau central. Mhm. je peux vous donner par exemple su fekkente ne ay tendance dañu am ci benn département euh, te tendance yooyu li koy waral leader yi la leader bu nekk day am ay ndaw yoo xam ne ci kooku la ñu affilié wu. mais yow boo jël décision au niveau central détails yooyu da nga ciy tenir compte. Mm-hmm. wala des fois sax yow situation boobu noonu dina impacter ba wadd sa kaw wala ba ñu tudd la ci ay affaires yoo xamante ne sax xëy na yëgootinoo mais day fekk ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci base ba responsable yu mag ñi juboowuñu bu ñu juboowul ndaw ña du ñu juboo ñun lu ñuy wax à chaque fois mooy jeune bu nekkee ci parti politique. dafa war a gëm li ñuy wax structure mais aussi jeune bu nekkee ci parti politique dafa war a am comprendre ne que dénominateur commun c'est le président du parti c'est le président de la République. Mm. et pour rebondir à la question mm. de Pape Cheikh tout à l'heure bu muy mm. wax ne que est-ce que ñun waruñ di tànnal suñu bopp. Mm-hmm. gis nga parti boo gis dafa am ay textes ay chartes yu ko tënk. parti bi ñun ñoo jox autorisation président Macky Sall muy tànn ay nit di leen di teg ci ay bopp structure loolu ñun ñoo ko nangu. ñun ñoo nangu woon par exemple jàmmalaay investir ko pour mu nekk suñu candidat à l' élection présidentielle de 2012 bi passé donc du moment où ñun nekk nañ ci parti bi jënd carte parti bi dafa am lu ñuy wax discipline de parti. parti bi ki nga xam ne moo ko jiite bu tegee orientation li nga xam ne moo war militant bi walla militante bi mooy mu tegu ci loolu. mooy mu tegu ci loolu. Mm-hmm. mais bu fekkente ne euh, parce que certes certes démocratie am na ci parti bi. c'est-à-dire bu ñu wootee secrétariat exécutif ku ne di nga wax sa xalaat mais nag bu fekkente ne tënk nañ foofu ba tëj li nga xamante ne mooy génn président bi porté ko mais dañu am obligation ku ne nga suivre loolu bu loolu weesoo nag président bi tamit bu jëlee décision te ñu nangu ne mooy président parti bi loolu amul benn militant bu ci war a teg lii wala teg ci laa justement ci décision yooyu dañuy ñëw ci investiture yi sans mhm. dugg ci propagande Pape euh, mhm. mais euh, Amadou Ba mhm. moom ngeen teg euh, ci liste départementale bu Ndakaaru Amadou Ba est-ce que am na Euh, disons euh, unanimité déjà ci biir parti bi rawatina ci ndaw yi ak Mimi Touré bi nga xamante ni Aminata Touré fi nekkoon premier ministre mi ngeen jël écarté ci mbir yi au fait euh, d'abord pour Amadou Ba c'est un responsable politique dans le département de Dakar précisément aux Parcelles Assainies ko xam ne aussi euh, dafa xeex def lu bëri au niveau des parcelles pour ñu gagner référendum au niveau des parcelles mënul détrôner euh, non référendum référendum bi laay wax bon exemple boobu rek laay joxe donc leneen li nga xamante ne leneen li nga xam ne moom laay wax sa rejoint à li ma doon wax léegi Amadou Ba investi tête de liste Dakar man je tey Euh, comme li ma ko waxee woon keroog ci guddi ga bi nga xam ne ñu ngi déposé liste ñu ñun bu ñu xool jëmm yu ñu investir nañu xool ki nga xam ne moo investir nañu xool ki nga xam ne moo tànn parce que bu fekkente ni dañu damay revenir at te dama ciy insister bu fekkee dañu ne président Macky Sall ñun ñoo ko jox carte blanche ni ko investiral mais bu tànnee Amadou Ba waa Dakar na ñu taxaw liggéey ak Amadou Ba pour revenir à la question de Mimi Touré à ce tout à l'heure Mimi Touré est une grande le parti Euh, nekk aussi jigéen nekk koo xam ne aussi naw nañ ko mais bu fekkente ne euh, président la république ma koy fàttali Mimi mu ngi ñu rejoindre juste bi ñuy dem campagne. Mm-hmm. mu liggéey ci lu mu ci war a liggéey ñu génn président jox ko ministère de la justice ñu pare mu jox ko primature. ñu dem élection mu perte Grand Yoff ñu pare foofu ñu nommé waat ko li nga xamante ne moom mooy envoyé spécial ak avantage ak li ci war yëpp. Mm-hmm. mu continuer di ci liggéey liggéey bu am solo bu fekkente ne nag. président ci boppam parce que ci ne moo xam ca boppam fa nga war a ne. Mhm. ak fa nga ko war a utile ak njëriñ ba nga ko amal. donc même bu nekkul ci liste yi. man je pense que tey jii nii lépp lu waroon rek mooy ñu waxtaanee ko suñu biir. Mhm. mais am na yoo xamante ne man je trouve ko tey ne serait resque pour la cohésion du parti. Mhm. ak fi nga xamante ne dynamique bu ñu nekk bëgg a gagné. Euh, ndem mag ndaw ñi lañu ñu ne noppi leen. toog leen dem leen liggéeyi bàyyi leen xiiroo ak ngaayoo. asatuma nag les mag ñi nga xamante ne mat nañ ñu yaay ñi mat nañ ñu pap esprit de dépassement boobu dañ ko war a am parce que njiit doo ko jiital ba pare di ko faxasal doo ne président mooy sa président mhm. ba pare bëgg a wax ne que tey mhm. fii la may teg par force wala euh, bëgguma man très sincèrement je le dis en toute honnêteté ku mu doonoon aussi ak fépp foo mëntoon mooy analyse bi nga xam ne def naa ko ci donc mais Amadou Ba ci këram nag Amadou Ba tey lam ci këram c'est ça Amadou Ba bi nga xam ne teg ngeen ko ci département de Dakar parcelle Guèye tànk wax naa ko muy commune boo xamante ne commune bu xaw magul te mënu kaa jël ci loxo Moussa Sy naka lay def pour jël Dakar ci loxo yi Khalifa Sall mais Binta la mooy nekk sa stratégie politique parcelle parcelle est la première commune dans le département de Dakar ci recensement bi ñu mujjee def donc li may wax rek damay wax ne que affaire bi du ay personne mais c'est une équipe l'équipe c'est quoi. mais équipe on a personnel politique Mbaye Niang mi Mbaye Ndiaye hmm? mi ngi commencé maire ah Mimi Touré mi ngi commencé maire. équipe boo xamante ne si biir bëri na liste yi di naa ne ça va exploser. loolu yëpp xëy na mooy mooy mooy rumeur yi nga xam ne rek hmm. yéen a koy dégg. mais bëri na guerre de hmm. positionnement bëri na ay nit euh, yu yu yu. parti bu mag parti bu mag diggante parti de mag. parti bu mag xam nga parti dafa am ñaari façon dafa am parti d'élite am parti de masse. Mm. nous nous sommes un parti de masse. parti de masse mooy parti boo nga xamante ne boo demee ba Kirikoro sax am nañu fa ay militants mm. donc ñëpp a ngi ci. Mm. am na jamono bi ci tolloo day am yoo xam ne mënul ñàkk. mooy xëy na ku ne di wax ni lii laa bëgg fii laa war a taxawee. man mais damay wax ne que encore une fois wax si APR un parti de masse. APR bu mu juddoo yàggul. mais APR c'est un parti de masse waxal c'est un parti au pouvoir mais c'est pas boo xam ne amul benn structuration. no mais naka la nekkee parti bu mag. Euh, faut pas confondre structuration et organisation. c'est la même chose. non non c'est pas la même chose. structure on organise. non non c'est pas la même chose. structuration mooy peut-être les choses classiques. buy mm. diw lañ fi fal diw département bee diw loolu mooy structuration mais organisation yow kilifa bi wala directoire parti bi wala secrétariat exécutif bi ñoom ñooy toog teg schéma d'organisation bi nga xam ne mooy tax ñu gagné élection moo wax la benn affaire ñun bi nga xamante ne créé nañ APR lu ñu président Macky Sall wax na ñëpp dem créé ji ay comité ñu yemale foofu structuration bi euh, li nga xamante ne mooy structure yi fu ne ñu am fa une personne bi nga xam ne moo kii moo jiite étudiants yi kii moo jiite jeunes yi kii moo jiite femmes yi mais comité yooyu ñu demee mais moo tax keroog ca ay congrès bi ñëpp dañoo waaru parce que xalaatu ton ne APR amee na nii mbooloo mais loolu liggéey la bu ñu def ci suuf te loolu moo tax tey li tax may wax parti de masse parce que bu amee ñu bëri ñu adhéré ci parti bi ci li nga xam ne président mu ngi koy def mais aussi ci nu ñu gisee seen bopp ci biir parti bi adhéré par la transhumance Euh, par la transhumance mooy li mujj. mais APR bu muy nekk parti de masse bu tey boo xam ne dafa implanté wu dans le Sénégal kon président lu tax muy ngoy ci ci ci nga xamante ne ñooy les alliés bu muy implanté wu dans le Sénégal. Mm. c' est depuis 2000 c' est depuis 2009 mm. président a fait deux tournées a fait deux fois le tour du Sénégal. partout amul fu ñu duggul mm. amul fu ñu duggul foo xamante ne installé wuñu fa parti bi donc li nga xam ne nag moo ci am par rapport à la transhumance bi ngay wax. man dama jàpp ne que suñu nekkee ci nguur président Macky am programme boo xamante ni mu ngi koy def muy le plan Sénégal émergent mm-hmm. mu am ay doomu réew mi ñoo xamante ni gis nañ seen bopp ci li nga xam ne président Macky mu ngi koy def mais kenn mënu leen tere ne doo leen jàppale président Macky Sall ci liggéey boobu loolu kese la voilà léegi euh, dama bëggoon ñu euh, taataan aussi question internautes yi rapidement mhm. euh, balaay boobu sànq ñu ngi waxtaanee dëkk boobu nga jiitee di jaareer jaareer mhm. Dieynaba am na élément boo mhm. xamante ne am nañu ko ci mun nañu ko seetaan et puis juste après taataan question internautes yi ak Marianne Siva boobaa dara néew fu mu ne nii gis nga fi may taxaw nii di wax ci mar bi ay mbaar mbaar yoo xam ne suñ ci taxawee suñ ci jëfandikoo rek mu daanu waaye ñun mag yi ñu nekk fi rek di ñaan fi ma taxaw fii eh, macha allah dafa rafet ba kenn xamul jël na tali bi Fatick ba mu dem ba joyin liggéey bi ñu ngi yàlla ñu ngi ñaan yàlla mu mu pare bu baax ñu commencé ñëw booba mairie bi sax dafa bëggoon a daanu mais bi fi ñëwee def ko liggéey liggéey boo xam ne dafa rafet ba kenn xamul ñun magu jaareen de kontaan nañu bu baax a baax a baax a moom. commune Thiaré dëkk yi fi amoon récépissé yu tuuti lañu mais bi mu fi ñëwee ñëpp am récépissé ku wax mban mu yëkkati mban jox la foofu la xelu jigéen ñi commencé dal fekk sax gagné bu mairie bi mu gañee mairie bi nag jigéen ñi door a fiix ñu xam ne jigéen ñi ay jàmbaar lañu dañuy yàgg a sonn mais fayuñu leen woon seen ak madame le maire ñëw nag gis loolu soldaalam nag pour loolu ñetti machine joxe na ko fi te demul fenn lu ëpp ñaar fukki machine machine soq wol ak tigadege ak segal poste de santé bu Thiaré logement infirmier bay dafa yàqu woon mu defar ko ba mu baax am na cinq millions yu mu jox jigéen ñi directure de la case des tout bi mu doon tabax na fi case des tout-petits bu rafet meublé ko tey jii boo fa demee xale ya fa nekk am nañu ay ordinateur ay xale yu ndaw loolu am na ñu bari ñoo xam ne amuñu ambulance la andi barki démb balaa ambulance bi di ñëw salaire u maire bii ci dara ñu ñaanal ko yàlla nag li mu bëgg lu nekk ñun nag xam nañ li mu bëgg lu bari loo xam nañ ko ci ndax Macky Sall rek moo ko jox. madame a eu à donner euh, 6 millions en 2016 et 6 millions 500 en 2017 ça c'est pour les fonds d'appui la commune aux écoles élémentaires chaque année madame a eu aussi à faire la reprographie des épreuves pour faire un essai pour les élèves de la commune de Diarère. Madame a eu à doter les écoles 150 tables bancs et 200 chaises, 40 tables, 40 tabourets au niveau de la petite enfance. Ils ont eu à, euh, construire salles de classe à Pitguiré et deux salles de classe à Mbelungitch. Pour le BCI 2016, il y a deux salles de classe qui sont programmées pour l'école de Bordel. En même temps aussi, euh, l'école de Lemdam est en train d'être clôturée au mois de juillet. Madame le maire a eu à faire une distribution de prix. Elle a eu enfants du préscolaire au cours moyen deuxième année. donc muy dëkk boo xamante ni ñu ko xamuloon peut-être xam nañu ko tey Jareer nga jiite ko euh, Thérèse euh, ban commentaire ngay def euh, ci li nga xamante ni wane nañu ko ci ay réalisation yoo xam ne def nga ko fa. waaw damay nuyu d'abord population Jareer yëpp ñi may seetaan di leen wax ne que kii la ne ñëwal. maa la fal. Mhm. maa la jiital kooku amoo fayam. Mhm. donc tey ñun ci dynamique bu ñu nekk mooy dynamique ba nga xamante ne jaamu seen soxla. Mhm. Euh, may wax ne que nag su may wax ci jaareex dama ciy fier ndax euh, falaa jàngee falaa juddoo. donc ba bi nga xam ne falaa amee entrée en sixième soog a dem Fatick. donc li nga xam ne moom ngeen gis nii. Euh, dama koy wax. politique yi nga xam ne président Macky Sall mu ngi koy développé à le plan Sénégal émergent le PUDC précisément. man dama ne ñun kaw-kaw yi PUDC mooy suñu plan Sénégal émergent parce que lii mu wax ci affaire machine yi PUDC la piste yooyu ngay gis ñu koy dugal ci biir dëkk bi di jàllale muy jàll ci ay dëkk yoo xamante ne nawet mënoo fa woon sax jaar ndax bu tawee ndox bi day bëri donc loolu yëpp ci PUDC la mais surtout di wax ne que côté éducation mhm. li ñu fay def am na solo parce que euh, monde rural bi dañoo néew doole mhm. te lépp loo xamante ne je pense que mooy li nga xam ne bokk na ci li ñuy génnee ci ndóol boobu euh, capital humain bi da ci am solo muy xale yi am jàng xale yi am formation mais aussi waajur yi sentir nécessité wara yóbbu seen doom yi école moo tax ay distribution de prix mais surtout ñuy def li nga xam ne mooy résorption des di di di di di xeex li nga xam mooy abri provisoire yi mm-hmm. tabax salle de classe yi marché yi aussi gis nga ko soo demoon bu njëkk buñ la wonoon fi marché bi nekkoon ay sàkket la woon mhm. xeex nañu ba tegal leen ñaari marché yoo xam ne ñaari dëkk yi gën a mag mu ngi ci un montant de 130 millions presque ak électrification bi rural bi aussi ñu ngi ciy xeex mais li ma mën a wax surtout mooy président mag Sall juumul bi nga xam ne gis na ne que euh, kaw gi dañ leen a war a gën a jàppale parce que tey Pape Cheikh mhm. euh, Sénégal fii ci Dakar sax courant day coupé une heure de temps nga bëgg rey sa bopp. Mhm. ki nga xam ne nag toog na ay ati ati at gisul courant. Mhm. donc nit ñi nañuy sóoraale un peu loolu mais aussi surtout côté ndox mi. Mhm. yenn saa sa ndox nga ñàkk ko mais ka nga xam ne bu bëggee am ndox day root day dem ay kilomètres pour rooti. donc yooyu yëpp moo tax vraiment investissement yi état bi di def ci kaw gi mm. damay wax ne que duñ ci mës a doy kaw gi nag ñoo ñàkk dara ndax mm. comme on souvent ndakaaru du mooy Sénégal mooy Sénégal du ndakaaru rek mooy Sénégal Sénégal jaareer la ni nga ko waxee ak yeneen mm. dëkk yi nekk ci kaw gi donc ñoom it war nañoo am yëpp te Sénégal émergent mu ngi jaar ci commune yi émergé mm-hmm. Sénégal émergé commune bi ñu émergé euh, région yi émergé je pense que le Sénégal de façon globale aussi gis li nga xam ne moom mooy émergence donc exécutif locaux yi daal de façon générale mhm. lu ñu war a def te gën ci taxaw mooy surtout infrastructure yi ñu développé ko à la base waaw mhm. voilà question internaute yi ak si Siva Diop sànq ba tey euh, ñu ngi euh, yónnee ay laaj ci hashtag bi di QG Sénégal. waaw bëri na Pape Cheikh laaj yu ñu koy laaj mais ñu tënk ci tuuti rek tàmbalee ko. par question wu Diaw Fara mhm. moom nee na li mu bëggoon xam mooy nee na depuis 2012 bi nga nekkee ci boppu casier tout petit mhm. soo doon def bilan wu sa ay réalisation lan lay doon Malick Cissé moom nee na dafa bëgg xam euh, sa sa li nga xalaat ci ñaari ndawu APR yu nekk ca Kaffrine euh, muy Abdoulaye Seydou Sow ak Bilal Cissé nee na loo xalaat ci diggante ñaar ñooñu. Euh, keneen itam di mbay seen yi ñu ngi wax sànq waxu Jareer nee na dafa bëggoon xam yow en tant que maire Jareer nee na soo doon def sa bilan d'étape ci ci sa biir commune. Mhm. lan nga leen di defal. Rougui Wane moom li mu bëgg xam nee na avantage du nouveau modèle de la case des tout-petits par rapport à l'ancien mhm. donc euh, loolu mooy question yi nga xam ne moom lañ tënk mhm. je pense que bu mujj bi tontu na ci par rapport ak avantage yi avantage yi ci avantage tontu naa ci mhm, euh, problème mu Kaffrine boobu aussi mën naa ne presque laal naa ko du ñaari ndaw mais mag la ak xale euh, li ko waral aussi euh, c'est parce que ñaari tendance fa am mhm. donc mooy li ma doon wax léegi rek mhm. mais li am solo mooy nañu xam ne que tey fii ñu toll président Macky Sall jàmm moo koy may lu mu bëgg mhm. donc na ñëpp tappewaat xol yi ànd doon benn liggéeyal parti bi te yàlla tax euh, question wu Diaw Fara bi ma koy nuyu au passage moom tamit lu mu laajte ci bilan bilan Case du Petit mën naa wax ne que tey jaar naa ci sànq. Hmm. ñu ngi tabax nañ presque 37 cases yi tout yoo xamante ne. Hmm. état Sénégal moo ko tabax. Hmm. mais aussi beneen programme boo xamante ne presque 30 cases yi tout petit boo xamante ne programme Koyka coréen yi ñoo ko tabax. donc loolu yëpp nag mën naa ne euh, bëri na tas nañ ko ci réew mi. mais aussi surtout ñu ngi encourager aussi partenaires yi parce que état day tabax mais partenaires yi aussi dañuy tabax. Mhm. ma ciy gërëm ay UNICEF ay World Vision ak ñëpp. mais surtout li ma mën a gën a insister aussi. Mhm. parce que si biir petite enfance dafa am tranche bi ñuy wax les 0-3 ans. mooy mhm. xale yi nga xam bu ba ba ñuy am ñetti at avant ñoo dem ci structure yi te ñooñu aussi am façon traitement bi nga xam ne war nañu am ci ñoom. am na politique bu ñuy développé ak conseil familial yi ñuy wax ak yaay yi ci kër yi di def ay visite à domicile comme ni bàjjanu gox yi di def. Mhm. loolu aussi am solo. Mhm. ngeen may ma ma leeral tuuti parce que gis nga xale li ñu bëri xamul Sénégal te lii may wax foog naa ne que neurologue yi wala ñi nga xam ne ay spécialiste lañ en la matière mun nañ ko xam. Mhm. xale li nga xam ne moom mooy développement cerveau 90 pour cent mu ngi koy am avant avant avant nit sax laay wax 90 pour cent mu ngi koy am avant 2 ans. d'où importance xale nga koy bàyyi muy fo di ko tegal jouer mais aussi di ko stimuler di waxtaan ak moom di def ak moom lu nekk loolu dafa am solo. Mhm. donc mënoon naa ñëwaat ci yeneen réalisation comme programme informatique bi trois 300 casiers tout petit avec l'ARTP périmètre maraîcher xale yi nga xam ne dañu leen di jàngal nu ñuy gérer environnement arroser lan mooy njëriñu garab mais aussi surtout li nga xam ne également moom mooy. Euh, aspect pédagogique bi mm, waxoon nga ci léegi te ñëwuñu ci ah. mooy apprentissage yi yi nga xamante ne aussi moom la moom moom la ñuy nu ñuy former jàngalekat yi mm-hmm. bu ñu leen former à l'EFI ay programmes yu précis quand ay programmes yu précis ay curricula yoo xam ne gouvernement Sénégal moo ko teg ñu koy def ay professionnels lañu ñu koy def ay professionnels lañu ay ay ñoo xam ne état moo leen former ci centre formation yi nga xam ne ñu mu ñoom la ministère de l'éducation def loolu bu pare nag dafa am li ñuy wax la formation continue mm-hmm. mooy nu ñuy gën a renforcer jàngalekat yi ba ñoom ñu gën a approprier wu li nga xam ne moom mooy espace walla environnement xale yi mm-hmm. Mm-hmm. donc mënoon naa lim lu bëree bëri mm-hmm. parce que nag euh, Case des Tout-Petits yi ñu ngi ciy def lu lu am solo li mel ni affaire diine bi aussi. Mhm. loolu ñu ngi ciy def parce que maître coranique yi dañuy dem ci case yi di fa def trois wala quatre fois par semaine. Mhm. di jàngal xale yi alxuraan zone yi nga xam ne dafa am concentration catholique yi aussi foofu aussi dañuy permettre ñu am catéchisme donc yooyu yëpp daal cosaan beeg aada bi léeb yéeg yëpp mu ngi ci case tout petit. Mhm. donc loolu laa bëggoon tontu ci jaw fara foog naa bu dee am na beneen question bu jaareex bi moo ci des. Euh, bu jaareex bi euh, dama ciy kontaan parce que. jaareex comme ñu bëri xamuñu ko woon nekk na gox commune ba nga xamante ne aussi euh, commune bu bu bu bu xaw a metti la euh, parce que effectivement infrastructure dafa posé woon problème lu ñu njëkk a travail mooy désenclaver la commune jole yoon ba nga xamante ne day jógee Fatick ñëw jaareex jubal ba Diohine mais aussi am beneen yoon boo xam ne ak Ageroute day jóge Diouroup xam naa ñi xam gox bi dina dinañ comprendre dugub biir jaareex dem ba Niakhar tabax marché yi nga xam ne moom lañ fi wone léegi tabax fa aussi ay cases yu tout petit mais également surtout les salle de classe ñu waat ko ci biir commune bi mais aussi équipement jigéen ñi mooy li nga xam ne moom mooy moulin yeeg machines yi parce que foofu da ngay gis jigéen ñi dañuy wol dañuy bojj lu nekk dañ koy def bon bi nga xam ne équipement yi ñëw na aussi mu nekk lu lu mbégte ci ñoom ñoom ñëpp ñu jàpp ci kontaan ci mais aussi ak financement yi ñuy accompagner jigéen ñi financement yoo xam seen mutuelle lu bopp la ñuy am pour ñoom ñu jàngal seen bopp gestion parce que financement yu bëri bon contre ma yeneen mutuelle yi mais jigéen ñi ñu bàyyi leen à l'épreuve ñu gérer seen bopp aussi def ci daf ci am solo électrification rurale bi aussi ñu ngi ci donc euh, ñun daal ñu ngi nii euh, di di jaamu yàlla ci loolu voilà mhm. defe naa bu doon suñu sago ñu continuer ak yow mhm. euh, waaye defe naa oustaz Pape itam il faut ñu bàyyi ko mu dem ñun itam mhm. ñu dem préparer xëdd ak téléspectateurs yi moo gën ñu leen di tooñ lu tax ñu leen di tooñ donc dañ leen di bàyyi ñu mën a may tëjee rek mooy Euh, xam naa la bu baax. Mm-hmm. ci wàllum xale. waaw yàgg naa ci. waaw yàgg nga ci mm-hmm. temps la télé état nous. da ngaa yàgg ci télé. <laughs> donc ñu la ci doon topp di la ci seetaan donc mm-hmm. maa lay ñaax di ñaax képp aussi ñu gën a jàppale xale yi mm-hmm. Sénégal. di am ay initiative gën leen a jàppale. borom doole yi nañ ci def. loolu rek laa bëggoon wax. incha allah nga jàpp ci yow tamit nañ ci jàpp bu baax a baax. alhamdulilah kàddu ngay tëjee euh, ngay tëjee waxtaan bi. sant leen félicité leen yéen ñëpp. Ah. baalu leen mais tey moom dañ la xamee dame de fer sànq maa ngi la naan da ngaa bëri a sonn voilà <laughs> je sais que téléspectateurs yi ñu ngi wax loolu quoi voilà c'est que seen raam moo tëj seen gémmiñ daa mel ni waaw n'est-ce pas yan kàddu ngay tëjee ngay tëjee remercier président de la république ak soxnaam mhm. mi nga xamante ne moo ñu teg fu ñu nekk mhm. mais aussi bu ñu xamee ci Sénégal yàlla ak moom a tax mhm. et félicité waat groupe Futur Média ci émission yu rafet yu neex yi nga xamante ne aussi Sénégal ak diaspora ñëpp a ngi leen di seetaan concept quartier général quand même c'est une innovation de taille il faut le reconnaître donc loo xam ne de téye nit ñi ba une heure du matin deux ah heures du matin ah ah loolu dafa nekk loo xam ne ndam la du doyal <laughs> donc bravo ngi gërëmaat ko sama yaay sama jëkkër. waaw donc merci beaucoup. merci beaucoup Thérèse et puis voilà yàlla na yéen bi gën a oyof. et puis mhm. euh, ñun loolu la ñu bëgg ay xale yu am jom oustaz Pape ñu ngi lay gërëm bu baax rendez-vous ak yow euh, bu ca kanamee tuuti. Euh, ci télévision Futur Média. ci kanam tuuti bu 6 heures demi jotee. Mhm. da ngay fanaan rek da ngay faf fanaan rek bu baax Thérèse macha allah moom itam di jàmbaar. Mhm. yal na yàlla dolli ko jàppale. ndax nit dafay yuutu yu mag. xale bu bëri jom la vraiment waaye boo ne jàkk boo waxee nga li mu bëgg te mm-hmm. dëggu la mm-hmm. euh, gëm nag ki mu àndal di ko ñaanal yal ko mm-hmm. yàlla dolli ndam moom Thérèse boobu ba tey ñu ngi koy topp waaye kàddoom yëpp buñ koy déglu rek xam ne kàddu yi dëggu lay doon ñaanal réew mi yàlla dolli fi jàmm am nañ bis ci yow alaaj bu subaa ak jàmm wallaay sonn nga ñu bàyyil ñu tàggoo rek mais ëllëg moo wax téléspectateurs yi ni ñu def tey euh, ci Baye Niass daañu ko def ci euh, Cheikhul Khadim jërëjëf def carte générale boo xamante spécial Serigne Touba doon. Euh, incha allah koy tàmbali en direct ak borom xam-xam yi nga xam ne ne ci réew mi. Euh, ne itam ci euh, télévision Futur Média Adja Binta Diallo yu it ñu ngi lay gërëm bu baax ci sa taxawaay ci quartier général dik la daje fan yi rek. ci kàngam nga xam ne ñoo ñuy fekk si compte ma fàttaliwaat ko. ci CNRA ak décision <laughs> voilà. maa ngi bu baax man tamit amoon mbégte ci plateau quartier général. Mm-hmm. amoon mbégte Thérèse Thérèse mhm. Diouf Faye mhm. ah, Diouf bu dee jigéen la <laughs> euh, buy liggéey dañ ko war a encourager di ko mhm. di ko di ko laaj nag mu gën a persévérer ci ci li muy def te xam ne les défis yi koy xaar bari na mi ngi ci kanam euh, di la ñaanal yàlla may la ci ndam parce que jigéen nga il faut que ñu jigéen bu mel ni ñun ñu di la encourager même suñu dee ay journaliste aussi bëgg nañu jour euh, ji jigéen boo xam ni ci li mu nekk daf koy daf fay am ndam Mm-hmm. may gërëm ñi nga xam ne bokkoon naa plateau bi ak ñoom Oustaz sama xarit bi nga xam ne gëjoon naa ko gis mm-hmm. Pape Cheikh aussi Dieyna mm-hmm. ba Seydou Ba ah, ak sama rakk toog fii yëpp maa ngi leen di gërëm di leen wax à la prochaine incha allah merci beaucoup Adja Binta ñu ngi lay gërëm yow itam bu baax merci beaucoup ma Diop Peex waaw ah, Pape Cheikh euh, jërë ngi jëf uh-huh. ñuy remercier bu baax baax téléspectateurs yi ñuy seetaan euh, di leen ñaanal euh, kooru jàmm ak salaam waaye di remercier bu baax a baax tey Touba Peex nga xamante ni moo ma sañseel sama tante sama tante Touba Peex Couture moo ma sañseel tey mm-hmm. sama tante Ndoubé ak Pape Ngom ñetti mm-hmm. Pape ya fa nekk yëpp ñu leen di remercier bu baax tey ci ay abiyam abiyement bu rafet bi nga xamante moom defal waaye di remercier waa bu baax a baax Pape Cheikh sëñ Bassirou Mbacké mu sëñ Khadim Awa Ba nga xamante ni ci jàppale bi ñuy jàppale yëpp ak xaritam doomu daam Nawel Jong waaye di remercier bu baax a baax euh, euh, Ablaye Ndiaye Ngal nga xamante ni tarfkal la moom tamit euh, ku ñuy jàppale la Pape Cheikh di leen jox di daje ba beneen quartier général incha allah merci beaucoup Mariane Siba merci beaucoup Pape Cheikh euh, di joxante rendez-vous demain incha allah euh, di gërëm établissement Fallou Kol Fallou Thioub <laughs> Dabis Thioub bi awa signaté moo ma ko jox ah, euh, dama meng borom Dabis création jox ma ko bu leen fàtte Almoumina demain 17h45 incha allah Almoumina ñu ngi lay gërëm bu baax merci beaucoup Merry Beye Diouf merci Pape Cheikh di gërëm téléspectateurs yi toog ba léegi di di seetaan mm. euh, di wax aussi euh, félicitations Thérèse c'est vrai que maa ngi lay door euh, gis wax ak yow ci plateau mm-hmm. donc c'est vrai que ressenti bi ngay am entre télé ak réalité bi c'est c'est c'est quand même différent te di ko féliciter tamit parce que jigéen buy bay waaram la ah ci ci ci côté am mhm. euh, man tamit di remercier juste euh, Yacine si tunnel de la mode mhm. moom moo fi jaar toujours moo fi génn waaw man moom foofu laa abonné si tunnel bi rek laay jaar 77 655 82 43 di remercier aussi maman Diallo pour musóori ndax li may tegal temps yi amul fen mhm. donc euh, merci beaucoup merci aussi à sama mag yi et à jeudi prochain incha allah ñaatam ba yow ñu ngi lay gërëm bu baax a baax a baax waaw Pape maa ngi lay gërëm di gërëm téléspectateurs yi di gërëm suñu invité tamit madame Thérèse mm-hmm. euh, comme ni ko Binta jàlloo waxee jigéen la waaye mi ngi ci bay waaram mm-hmm. dañ doon wax ni moom nee na ñun dañu sedd waaye moom ci boppam moo am nu mu ñëwee tey mm-hmm. euh, léegi di wax nañ ko donc ñëw expliquer loo xamante ne ah nit da koy mën a dégg waaye man ci xeex bi laa doon ñëw te xeex bi daf ko yàgg door te xam naa ni parewul su ma ko laajoon fan la ambition jëm te xam naa ne du ko wax mais li muy wax euh, wax ñun ñi koy xalaat mu jëm donc dañ lay encourager bu baax a baax sant euh, Mouna boutique euh, sant également ñëpp ñi nga xamante ni ñoom ñoo tax ñu mën a toog jàkkaarlook euh, téléspectateurs yi di sant collègues yi ñi nga xamante ne ñoo fi nekk di ñaan yàlla defal ñu jàmm te lafal ñu cat voilà merci beaucoup ñaatam ba sama ex la nag voilà parce que daf ma daf trahir quoi merci beaucoup ñaatam ba <laughs> Thérèse defe naa kontaan nga waaw euh, kontaan na euh, xanaa ci toujours ci gërëmaat yi yëpp. Mhm. Euh, remercier le personnel de l' agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Mhm, mhm, parce que li ñuy naan benn lam du yàngatu. te tout résultat quand même est le fruit de l' engagement d' une équipe. d' une équipe plutôt. donc dafa am ñoo xam ne ñoom ñoo lonko di liggéey nekk ay patriotes donc ma leen di remercier mais aussi remercier équipe bi nekk ci mairie ba di remercier ñëpp daal Sénégal yi may seetaan yëpp. di leen di wax ne que à la prochaine. voilà remercier waat leen yéen ñi fi toog yéen ñëpp macha allah. jërëjëf Dieynaba Seydou Ba yow itam ñu ngi lay bu baax ah waaw gis nga <laughs> yaay neex a tëjee ah. <laughs> alors euh, euh, voilà euh, merci Pape Cheikh mm-hmm. man nag xam nga ne damaa bëgg musóor damaa bëgg tagal. voilà donc ku bëgg si tagal yu mel nii rek da ngay dem seeti Fat si Foulard. Medina mm-hmm. la nekk mi ngi ci 77 600 612 45 02. donc 612 45 02 Fat si mooy def kon musóor yi waaye tamit gërëm. yërëm sama dëkkandoo yi mhm. euh, xam nga ne nga jox nit tissu rek mu ñëw dagg ko wallaay sama dëkkandoo yi euh, ak maa leen bëgg sama dëkkandoo yi ñoom euh. madame Sonko ak Pape Tayeram ñoom mhm. ñoo kon habillé waaye mhm. tey nag moom xam nga lii moom boo ko xoolee nga xam ne xàmme nga ko mhm. Aïda Aïda Niang mi nekk kon fii ci télévision Futur Média mhm. moom moo ko daal di jox rek ne ma jeena ba sol ko kon tey ci quartier général mhm. di ko gërëm bu baax di jël gërëm gi nag di ko jox Oumou Ndiaye madame Ba mu séddale ko ñi ci des rek mu nga kon euh, fii la ñuy jaaree jeexal tey quartier général bi dig daje gi ëllëg lay doon bu soobee yàlla 22h daañu waxtaanee euh, Cheikhul Khadim du doy sax ci benn émission mais dinañu jéem rek euh, tënk rek pour jagleel ko téléspectateurs yi ëllëg nag jotaay bi dina mel ni Touba ci télévision Futur Média ñu ngi nuyu suñu xarit yëpp euh, boo demee euh, New York fekk fa euh, monsieur et madame Ndaw consul bi ak soxnaam ñu ngi leen di nuyu madame Mbaye Penda Guissé ñu ngi koy nuyu Margot Konaré ak waa ministère des affaires étrangères mais nuyu tamit ki nga xamante ni mooy Ami Dieng Amina Amina ñu ngi koy nuyu bu baax Ami Dieng merci ci jàppandal gi di gërëm tamit Bàcc Dioum Keifa merci ci collaboration yooyu bi gërëm suñu partenaire yëpp Kulim Dioum tonton Mag joxeel nuyoo bi équipe technique technique bi ñoom Khadim Cissé Yao Gervais Petit bu EFAT ak Mbaye Diouf mu euh, Penda Mbaye Maam Ngala itam ñu koy gërëm bu baax euh, ñi des nag euh, ñu ngi leen di gërëm waa service digital Pape Jean Cheikh ak ñoom Magui ñoom ñëpp ñu leen di gërëm fàttewuñu waa service logistique et puis Tunkara ci kaw tonton Macky suuf ëllëg ñu dellu siwaat incha allah 22h merci aux maquilleuses maman Henriette Diallo Khadija ak Yacine Yacine mooy xëy fajar gi àndandoo ak ñoom oustaz Pape An gàcce ngalaama moom gërëm tamit préparation wu émission bi euh, bijou pour la coordination Jaynaba euh, ak euh, ñoom Marianne ak Mamadou Ndiaye ci wàllu rédaction wu quartier général et puis gërëm tamit Bouba Ndour mi nga xamante ni moo koy produire à demain